يونن صلى الله عليه وسلم ألقي الحزات الخير جد الجوق فاما معنى ومن مر منهم خيلون له ألقي الحزات هم يونن بألقي الحزات هم يونن ألقي الحزات الخير العقوبة هل الدر في رجب مولد ثم المنادي ينادي سيد العالي مالك وصليا يا إلهي وجزيا عبدا عن محمدنا المختار بالمال نتنبه أن نور القدم ليلكم قد قل في همتي يا رماما مولانا وصليا يا إلهي واجزيا أبدا فما وإنه إذ أراد الله نشأتنا أبانا من نوره وصيد العالم وإنه إذ أراد الله نشأته ويل أبانا من عليمة عليها وصافلة مودا أشيعة طلع جار ما وإنه إذا أراد الله نشأتنا أبانا من نوره نورا للعالمين وأعلم الله هدينا نشأتنا أبانا من نور دق المال فما عيون الأرواح من نور هدى بجت مجزت فإنه الجنس لا يعلم معصي الحال مالك وإنه نشأتنا ويل أبانا من نور جدتي أبدا حميد على أفعال دي الرجاء والغراء يا يوم شيخ سيد الحاج مالك من كل وصف حميد على أفعال الحج ملنا من كل وصف حميد هذا أفعال دين رجاء البرايا سيف الحج ملنا من كل وصف حميد هذا أفعال فما كان تحتاج تبرين سجاته أهل المدينة سائل الليل فاقد أجمل من كل وصف أيوة حنيق هذا أفعال تظن الدين الرجاء البراء جمالنا أتمم لنا نورنا واغفر جراحنا إمنا تقضي حوائجنا يا واسع حيا نفق يا رب وجزي لله أن محمدنا مختار صليا ننقل ويبقى الجنة وصليا يا إله وواهي وجزيا مكة بلد دلت عندك غير عنا محمدنا مختار ويبقى الجنة وصليا يا إله وواهي أبدا ونقل لي عنا محمد لنا مختار القدم فاتحة صلاة الفجر فاتحة صلاة الفاتحة يا سي عبد الكريم فاتحة صلاة الفاتحة امين يا رب ما شاء الله امين يلا نقول boo dundee yàlla na nga wér. boo wéree yàlla nga gudd boo guddee fan yàlla nga fekkee. boo fekkee yàlla na nga tal. di la ziar. bu beesal kóllëre ci sama diggante ak yow. ak yiw gi lool ak mbaax gi lool ak dal la way jur ya bàyyi woon ba léegi yaa ngi koy Cheikh El Hadj Abdou Aziz da baax yi bàyyi gi ni Abdou Aziz mu lay da baax ngi ni Cheikh El Hadj Abdou Aziz da baax ngi ni ak Cheikh Cheikh Seydi Mouhamadou Fadilou Mbacké ak Cheikh ak moom mii ñaari way juram yii ñu xamante lool te bokk li nu bokk nag ba pare nag mu jëf ko nag xam nga mën ngaa baax te li nga war a def doo ko waaye baax ba pare te loo war a def nga def ko ah. ah al amin al amin waaw xam nga boo defee lu boo boo dee def lu baax te am foo xam ne danga te ña nga bokkal ñëpp li ñu baax lu judd ci lu baax baax rek moo doon. dëgg la ku baax. waxuma baax gi sax waaye yëpp. wax naa ko nga baal ma wax naa ko sa soxna bët ki dem ndekke imaam ko jur xaw ma ko woon te kii sama xarit sama wëllëre la yàgg na ca ndakaaru bu jëkk wallahi ñu woon ca ndakaaru bu jëkk bi waxuma ndakaaru léegi imam bi. naa jox sama numéro. Cheikh El Hadj Abdou Aziz Dabakh sa baay wóolu ko lool nag jox ko responsabilité. bu rëy wallahi loolu moom dama ko fekkee kenn nattaliwu ma ko. jëf ju ne bés day xaar. wax ju ne bés day xaar. xamoon xaw ma woon ni soxna si yow bëgg démb laata sa moom man ko yow sa papa sama xarit. effectivement sa papa sama ah, xarit te booba xamuñu woon li des moo tax jëf ju ne bés day xaar wax ju nekk bés day xaar def jaa nga noonu bés baa ngi nii wax jaa ngi nii. xool daaw góor place bu nekk dafa am wax. wallaahi alaaji daaw góor wax bu nekk dafa am bésam. wallaahi incha allah jërëjëf alaaji daaw góor. léegi. Mhm. maanaam barki Serigne sin bi léegi lañ toog mu wax ni nañ yëkkati photo alaaji Abdoul Aziz bi am a ci kuñ ni soxna maam Ami Mbacke mu fi am indi nit ñu ni taaliba Cheikh la biñ ko wanee photo bi nii yëkkatil photo bi yow moom dafa tuur ay dafa tuur ay ay rangoon nekk te yow yaa ngi agsi wallaahi ndax moom mii dafa ne leen sànq dafa royu maamam Cheikh Ahmadou Bamba wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin la ñu waxoon Seydina Mouhamed. sallallahu alayhi wa sallam sëñ Tuba tàllal loo xam ne laakin unaadi kulla al ibaadi ila imaadi bila jalaali. macha allah yaa ahla barri yaa ahla baxri uudu li baxri baxri saxaay kon Seydina Mouhamed ak yéen. keroog moog soppeem ba Xaaji Maalik radiyallahu taala anhu mu Sëriñ Tuba bi nga xamee xaj mal yónni na ko hadiyaam joojee ni ko hadiyati mujibuha ijtilaabu mahabbatin ya ayyuha alxubaab ba mu koy tontu lam ko ca tegal mooy fa kayfa laa wal mustafa al mujaabu imamuna fa fii safal hidaadi laa tartaab gën jaa selli cofeel ak bëggeel bu ko weer kon eh, dafa am góor gu tudd Alé Niang ñu ngi dëkk fii ci Mbàkke ne Alé Niang alxames gi jot mu ngi gis ñu fa dellu Mbàkke radiyallahu taala anhu booy ñëw kii ñu ko soxla sa mucc na amul doom am fa yëpp mais sëñ Fadilu radiyallahu taala anhu donc sàmp sàmp ceeb suukar xaalis mu dem am xam si jotaat mu ñëw salaamaaleykum waaw Ali soxla sa amul doom mu def na ma mu def ko def ba jaar mu doon man daal tey bon waaye mu ñëw nag si bët ndeysaan nuyu ko dina naa fa demaat mu wax dara ñëw daal di koy nuyu bay dem ci bam waaw ale ale ale kaay may soxna Asa mu ko bii mu ne waa ji kaay jox ko ñëw baax ah, kum ko tuddee kum ko tuddee fallu fallu am na kum ko tuddee fallu waaw waaw waaw dafa ànd ak doom bi ñu hmm. ko kaay ñu demee na waaw des na seen fallu mbakke dara ñu tuddee waaw léegi nag toog doom ji toog maa ko man danañ léegi nag su ma defoon dana ñàkk fal mbakke su ñu daan mbakke parce que bu ngay entraîné ma entraîné entraîné entraîné entraîné bi ñëw ko yii dégg na nan dem ma ne sa turandoom ñooy sëñ salaamaaleykum Mbàkke tey soxna sa la doom ji la yow la ko tudde mi ngi nii moom laa doon mi ngi ci buntu bi xaaral ma woo ko xam nga dégg ah waaye Fallou xam nga yow la musical Baye Mansour di ñaanal Serigne Maodo waxtaan bi wér suñ koy moom la waxtaan bay mu mën a waxtaan laafa moom daal bu ko xasee xëj nga laafa bu ko xasee xëj ba toog ba toog dëgg la ngay dégg laafa bu ko xasee xëj ba toog dëgg la ngay dégg yàlla na fi yàgg min yàlla na fi yàgg xale yi jërë ngeen jëf వెలువేయు dana soxna soxna Pape bi ñu maa ko sëñ Mbaye sëñ wax ko ne ko sëñ bi kër léegi. déglu leen waay déglu leen waay déglu leen ba ci salle bi ma nekk. dana sëñ Mbaye ñëw ba ci salle bi ma nekk. Abdou Abdou Ba daw daw jiitu ma ma ma ne bëri bëri bëri ay yoon bu ma jóg. ma ne bëri bëri ay yoon bu ma jóg. tey waru ko gàttal. waru ko gàttal. waaye mënut a nekk. waaye mënut a nekk nag boobu. tawat bi waaw. waaye ma nekk ba mu ñëw. waaye ma nekk ba mu ñëw. xanaa ba toog ak ñoom ak ñoom ak yow. waaye laata muy ñëw xanaa ba toog ak yow. ma see ma nuyu ko si yoon. ma see ma nuyu ko si yoon. da ko sëñ bi leen rek laa bëgg. da ko sëñ bi leen rek laa bëgg. nga ñaanal ma. nga ñaanal ma. ba fu ma yëgati ni yaa ngi ñëw. ba fu ma yëgati yaa ngi ñëw. ñoo lay nekk ci buntu ba di teeru. ñoo lay ba ma bokk. ma bokk ci. ma ne ma waaw. ma ne ma da ngay jóg de. loolu defal na ma ko moom. mais loolu sëñ Mbaye mooy baax.